il faut dissoudre la conseil constitutionnel. ah waaw je suis pour la dissolution du conseil constitutionnel te lool loolu ma wax la je me bats pour aller vers la dissolution du conseil constitutionnel. mais enquête bi euh, euh, mais dama ne disposition yi ñu jël gum yépp mhm. c'est pour sori une crise institutionnelle man maa la ko wax. nañu wax fu ñu teg Rose Wardini candidature Rose Wardini nañu wax fu ñu ko teg te du moom rek. bu enquête bi génnee ni gis dama la wax am na ñeneen ñu am double nationalité mbirum clé yi bu génnee ba ñu xam ku nekk localisé la ku nekk kan moo lay indil sa clé ba nga jël ko yóbbu defar ko ñëw indiwaat. boobu yuuxu dina jub fu ñu ko foogewul de nit nag mën na éviter. réew mën na sentir ne mi ngi basculer nga éviter yenn yi mu bañ a génn. wala nga éviter ñu egg si à un certain niveau moo tax ñu tollu fii mais bu ko nit ngi xamul nag léegi nag ce sera ku nekk xeex que chacun mène son combat politique. ok. moo tax li li nekk ci réew mi yu bëri nit ñi dañ ko xamul sax xamuñu sax ce qui se passe d'accord d'accord Omar tey euh, ñu ñëw aussi ci li nga xamante ni moom moo am. diggante démb ak tey. Hmm. des détenus politiques yi nga xamante ni euh, tuumaan nañ leen fi lu ne ci réew mi euh, ay terroristes ay blanchiment d'argent ay blanchiment de lu ne wax nañ waxal nañ leen ko. nga xëy un bon jour rek gis mu libéré détenus politiques yi tey loolu ban jàngat nga ci gis est-ce que loolu ndërmeewul aussi itam tuuti justice bi ak li nga xamante ni dañ leen teg seen dernier waaw man. sans juger leen sans. xam nga dama lay wax nag benn affaire. Mhm. kii nga xamante ni ne mooy doyen des juges. Mhm. day sukkandiku sur le chef d'inculpation pour mhm. téye nit. bu leen ko fàtte. moo tax dañ naan nit buñ lay tuumaal nañu xool lu baax nañ lay tuumaal ndax am na loo xamante ni buñ la waxee atteinte à la sûreté de l'appel à l'insurrection wala viol wala meurtre wala chanvre indien dafa am ay chef d'occupation day day jur immédiatement mm. te mm. am na wala du am fa la ñuy fa la nekk fa la ñu nekk defe nag ay enquête moo tax gars yi di fa yàgg ndax li ñu lay tuumaal il faut ñu def ñu enquêter xool dossier bi et moo tax mu indi ay 6 mois 1 an ci prison bi da nga jàpp ne enquête bi dafa jeex. non non enquête jeexul. mais ñoom ni ñu génnee nit ñi sax dafa ñaaw. Mhm. comme ay kanaara. ñoom ñëpp lañ génnee presque. génn noonu di génn non moo nañ sax xaar ba guddi ñu def ko mu gën a su mu gën a kii mais ni ñu génn dafa ñaaw dafa ñaaw. mais jotoon nañ ci dégg naa xam naa ni euh, dégg nga ko mm. tamit. ay mm. info yoo xamante ni. président Macky Sall euh, maanaam yebal na Atepa waxtaan ak Ousmane Sonko Ousmane du waxtaan te waxtaanu ma samay mbokk. non xam nga dama lay wax benn affaire nag foofu xam mm. information yi. dafa xaw a xam nga waaw mais d' accord c' est à waxtaan bi am na te man d' accord naa waxtaan situation réew dina toll fenn fi. Mm-hmm. nga waxtaan indi apaisement. bañu ma ko yooyu dafa yàgg di am sax. ni waxtaan bi yow da jàpp ne am na parce que ñii ñu ngi koy weddi ñoom. non waay non xam nga ñoom ñoom ñoom. weddi nañ ne waxtaan waaw non ñoom ak Alioune Tine xëy noonu dem di dox ak toog ci télé yi di wax te amu si lu ñu téye c'est pas possible. kon nga jàpp te et puis ñoom aussi seen waxtaan du ñëpp ñoo ko war a xam nañu wax ji dëgg waxtaanu kilifa la du ñuy waxtaan dañuy ñëw toog fu nekk taxaw di ko wax yooyu ba yooyu amul. ce comme parfois ñoom aussi nañ xam ne réew mi tamit. dafay am waxtaan. li ñuy xalaat ni amul fii ku fi ne dafay am waxtaan bu fekkoon ne da ngay ku nekk da ngay camper sa position rek comme ñoom képp ku xamante ni nekkoon nga ak Ablaye Wade bu toog ak Macky Sall bu toog ak moom di xeex comme waa Pastef tey nañu bàyyi. képp koo xamante ni àndoon nga ak ak ak Macky xeex ak moom wala nekk transhumant bu ñu ànd ak yow si combat loolu nag boo demee ba accepté ko na nga accepté nag ne waxtaan woon na mhm. waxtaan am na maintenant. moo moo bari waaw mais xam nga ñoom dafa am ñoo xam ils sont forts en ça ils sont ils en ça maintenant. Sonko aussi day defar affaire am. bu ñu ñëwee ñu waxtaan ñu Sonko ne bientôt ñu libéré ko ñoom aussi ils ont leur communication mooy tey pour Sonko am doole dañ naan Sonko nee na moom kaawam intéressé wu ko mais détenu politique yi nañ leen bàyyi mais loolu day yokk day yokk kii day yokk martaba kii Sonko booy dañ koy gën a bëgg ne xoolal Sonko waxul sa ay kaawam. si ñii la commencé oui. et pourtant li tax gars yi di wax na waxtaan mu ngi am ci suuf ñoom ñu génn ci kaw ne waxtaan. oui xam nga ñooñu dañu mën a xam yëpp bi ñëpp ñoo ko mën a xam. d'accord. xanaa xamul ne li ko gën a rey loolu si la bokk parfois. bëgg a ku ne nit da ngay nekk leader dafa am ay décisions yoo xamante ni boo koy jël du ñëpp koy xam wala am na yow boo ko waxtaanee ak ay kilifa si yéen lay yem li ko gën a sànq lii si la bokk dañu daan taxaw fële Parcelles Assainies wala nekk ci ay mobilisation booy naan ko wéy Sonko muy wax lu ko neex mais loolu tey moo ko jural lii loolu la ñuy wax le sens de la responsabilité mooy man leader bi nag am na yoo xamante nii ne ça c'est ma responsabilité c'est à moi de prendre ça parce que yéen xamul mën leen comprendre parce que tey bu fekkee ne ñëpp dañ la topp ne la kaañ dem fële ñu taal ko doo dem wala kaañ dem taxaw fële doo dem ngay leen kaay leen ngay leen la mota nga ne bokku si kilifa aussi loolu la si tu ne peux pas yow maîtriser ta masse t'as pas besoin d'être leader mm-hmm. moo tax dama ko yàgg di wax ne leen seen ñi ngeen di organiser nii ça répond à trois critères les mobilisations rassemblement yi c'est trois c'est trois critères mm-hmm. le critère de l'organisation le critère de la mobilisation mais le critère de la responsabilité boo nekkee ak ay nit masse àdduna bi la seetaan waroo wax détail mais tey Ousmane Sonko ñu génne ko euh, ak li nga xam ne teg nañ ko ci kawam yépp maanaam du loi amnistie boo xamante ni euh, àdduna ci du dara génne ko nii rek. man man d'accord ma loolu wax naa si. d'accord. maa ngi xaar yow Macky Sall ak Sonko. Mhm. conseil des ministres bi ba xam dañuy wax affaire amnistie. bii passé de waxuñu ci. ñu ci wax parce arrêté wax naa si man. d'accord. mais loolu def réew mi sax. réew mi dafa commencé yomb accuser tous les noms Sénégal yëpp ñëw taxaw xam ne lii nga xëy suba rek ne ñii defatuñu dara non c'est facile kon assume ta responsabilité par rapport ak loolu loolu la su fekk rek nga xam ne yow la yow tamit mm-hmm. ak quel que soit alpha il faut aller jusqu'au bout mm-hmm. mais bien sûr fii man wax naa ne il y a deux choses avant même l'emprisonnement de Sonko ou c'est la rue qui, qui dirige ce pays ou c'est l'État on a tous été du côté de l'État mm-hmm. muy metti ñu nekk ci côté état bi ne kenn du nërmel suñuy institution mm-hmm. lu mu metti metti metti lu ñu def ay erreur suñuy institution il faut ñu dëgëral leen si dañuy défendre la police défendre la gendarmerie défendre la justice défendre tout le monde parce que réew il faut moom état ba tey nu mu jur ni mu jur ni moo tax ci laa doon waxee ne Sonko yow xamoon ne tu affaire à l'État mais pas à Macky Sall te l'État c'est un ensemble te bu ñu jógee du ñu xaj ci yow. mais est-ce que tey ni leen génnewee nii détenu politique yi est-ce que duñu may dëgg opposition bi doon wax naan li yëpp euh, euh, maanaam wàllu politique la kese politiquement lañ jàppee woon. waaw mais lool loolu nag bu ñu demee ba ci biir dinañ ko xam rafetlu nañu génn bi. donc ñu kenn mu nekk ci biir prison waaye bu dee affaire caaxaan la ils vont payer ceux qui à la base de tout dañuy fay ndax au moins doo cee ay nit réew mi toll ci benn guuta am ñu dee yàqal nit ñi defar lépp ba toll fi nga toll nga xëy suba dana yéen ñi dara amul. yéen leen. loolu aussi ñu ko def ñi wax ne ñii def nañu ba tey leen ñu xëy suba ne defuñu dara ñooñu aussi ils vont ce sera trop facile. ñun aussi ñun ni ñu bëgg ñun ñun ñun daal nit daal comme weñ quoi weñ boo jékki-jékki rek wala wala mutta mutta boo leen rek rey quoi ñun daal joxuñu benn gëdd doomu aadama quoi ñun Sénégal. alors que yeneen dëkk yi seen benn ressortissant bu deewee rek dafay mën na ñëpp a dee. yàggu man maa la wax dañuy xëy suba après fàtte leen quoi. c'est pas bien ça nañu teguwaat ci dëgg loolu mooy suñu problème. d'accord comme enquête yi instant bi mu ngi en cours euh, gars yi ñu ngi wax élection entre euh, le 10 mars est-ce que. bul eggale du am 10 <laughs> mars jëm avril du fi am élection kenn du ko nangu bu ko ñenn ñi nangoo ñun duñ ko nangu. Parce qu'on aime notre pays. On veut des, élég des élections libres et transparentes. élection yi kan lañ ko war a mën a nañ ko waxtaan nañ ñoom seen biir acteurs yi mais av mars avril mënul ne te ñeneen nañ bokkoon lii dindi Karim moo koy dugalaat lii dindi ñeneen ñi koy dugalaat parce que jaarul yoon. ok dafa lu ma ko pour Karim kese de on le fait pour tous les spoliés am na ñoo xamante ni premier tour bi lañ leen dindi parce que xam nañ c'est dangereux. toog waxtaanee ko ñi war a bokk ak ñi war a bokk. kon dialogue bi mënul ñàkk. nga ne mënul ñàkk <laughs> mais wax la benn affaire Boun Abdallah dafa dafa démissionné APR. Mhm. dafa démissionné APR. Ah, loolu da la wax. kan la ko ma ne fan laa waxee dafa la taxawee ne je quitte l'APR da nga ko mës a dégg il est candidat il n'est pas content. Mhm. léegi foofu wax lu wax moom loolu sax. mais léegi waa léegi dafa nangam léegi pare léegi léegi élection primaire yi. ci biir nguur gi. Mhm. primaire yi. Mhm. kan la woon APR. Amadou Ba. Mhm. Boun Abdallah. Aliou Ndiaye Aliou Ndiaye. Mame Boye Diao Mame Boye da nga dégg kenn ku ne ne je quitte l'APR. mais mais mais waaw dafa ndànk dama lay ba xam ko fenn. ba xam da nga ko dégg waxuma ne ay candidat lañ de dama ba xam dégg nga ñu ne bàyyi naa APR kii dana nag je je quitte le gouvernement parce que ils n'ont pas été choisis ils sont contre Amadou Ba ñu dem nekk candidat. Hmm. dëgg la dëgg. Hmm. waaw boo duggee si code ci code électoral bi am na benn article. Hmm. xam la lay wax pour être candidat indépendant il faut nga musa bañ a bokk bañ a def politique bañ a bokk ci parti. wala même bu fekkee da nga bokkoon ci parti il faut nga toog un an est que dafa dal ñi. non non. kon waruñu ne candidat conseil bi mooy problème bi bizarrerie bi yëpp conseil constitutionnel bi defuñu liggéey bi ñu waroon def ba tollu à ce niveau dafa bëri ay éléments de di nga ñëwaat fii ci kër gi de est-ce que xam nga di nga ñëwaat fii parce que di nga di nga di nga non il nga dolli ma yu bees. dama bëgg nga dagg ko tënk ko denc déglu li ma wax chaque jour nga déglu nag nga ba pare di suivre actualité politique bi xool fu mu lay yóbbu. ñu ci ëpp ñuy agité dafa am tax ñu agité mais agité wuñu pour l'intérêt du Sénégal lent euh, euh, euh, agir ñu pour qu'on ait une fête électorale parce qu'une élection c'est une fête. dans un pays c'est comme c'est comme li ngay toogee jékki-jékki tabaski jot ñëpp taxaw korite jot ñëpp taxaw ni élection c'est une fête on doit choisir le nouveau président de la République du Sénégal mais du caaxaan dañ ko war def ci anam ñu jaar yoon éviter demee après élection yi ñu dem vers des dérives te am na loo xamante ni ne bu amee fii ci réew mi bu solo sa bopp jàmm du am dem leen xool képp mooy sunu mbokk sénégalais bu nekk dans les pays de guerre wala de crise politique dem leen xool leen c'est le Sénégal est un pays où les gens sont matures et ils comprennent malgré le report am na yoo xamante ni dañ koy éviter depuis li fi xewoon ba léegi sénégalais da ngay gis ne ils sont un peu parce que bëgguñu taal seen réew. Mhm. bien que dañuy manifester seen mécontentement mais loolu prise de conscience la. te li di wax mooy il faut pas haïtiser le pays il faut pas haïtiser le pays di gën a garaaw dans un pays mooy nga yor un milliard te jënd ki yorul dara lu mu bëgg am ko bu boobaa c'est le règne des gangs mm-hmm. et il faut éviter ça dans un pays. Mm-hmm. Mm-hmm. prenons conscience de ce qui se passe. nañu xool. ñu bañ yàkkamti gars yi toog concerté wu trouver la meilleure date xool na la ñu demaatee boole ñëpp toog que le meilleur bu ko defee képp ko xamante ne ñàkk nga nga accompagner kii gañ kii gañe yéen ñii ñëpp ku ci yeewu ne ah papa yaay man de am naa liggéey dina li leen di wax alhamdulilah waaye yàlla na la jig mm-hmm, mm-hmm. am na ñoom dañooy wax tey li embauché leen tey. suba ñu tëdd bàq ya. réaction wu réaction wu Alioune Sall nan nga ko gisee ci ba conséquences yi jëlee. non moom dafa contre waa ñoom Marème. waa kër Marème mooy waaw waaw waa kër Marème moom pour moom. Mm. Marème Faye et pour le report donc moom il veut pas le report moom lu famille présidentielle d'accord rek moom day bañ mm. parce que dafa am guerre. entre ñoom loolu rek la amul wax ay ay ay Massamba ma dem moom pour ñoom report beeg Macky Sall pour ñoom moom loolu yëpp waa Kër Marème fa ko si dugal. moom loolu moo ko moo tax moom li ñu wax noonu gëm de mais day naxaral soxnaam ak famille. soxnaam moo tax mu am position bi naan non il faut laisser Amadou Ba mais bu ñu nekkoon nii du wax li sax loolu kese la nag. maa la ko wax wax ju bëri ji ñu wax yëpp loolu du affaire gënee de moo dafay contre famille bële. loolu kese la. bu ko Sénégalais jëlee ay ma sàmb ay ma demb du yooyu de. Omar kontaan moom tey bu ñu war a wax kay moom si moom. Uh-huh. mooy affaire Petro-Tim ak ak ak ak ak Énergie ak Frank Timis. Mm-hmm. moom ci loolu lañu war a wax. nañu wax nañu wax ci ci la banque de Dakar bii. Mm. banque de Dakar bi nañu si wax nan la juddoo fii Sénégal nan la fi mën a ñëwee fii nañu wax ci Frank Timis ak Timis Corporation ak action yi nan lañ ko jaayee. Mhm. foofu la xaar la ñuy foofu la ñuy xaar Aliou Sall il ñu si on a besoin d'être édifié sur ça loolu bu ñu si waxee bu ñu xam bu mu leer nañ loolu nañ ci am mbégte lool. xanaa ah, yow daa ci xam te ñun xamuñu ko. Euh, moo tax ma la moom nañu wax ci loolu. <laughs> na lu war a wax mooy loolu foofu lañ koy xaar de. Mm-hmm. xam nga Sénégal dañu gaaw a fàtte. Mm-hmm. dañu naan nii rek nga am benn nga wax benn wax ñu ne kii guerrier la nga fàtte lépp boo demee forêt mamel bële. Mm-hmm. mamel am na benn tour de mamel bu fa nekk. kan moo ko fa def caisse de et de consignation kan moo fa nekkoon moom la. Aliou Sall nu mu demee loolu xam nga ko yow. xaw ma ko de hélico <laughs> ah, ñaa am na benn sud bi ñuy wax hélico ñaa hmm. kooku dafay wax dafay nekk ci affaire loué ay avion hélicoptère gis nga plateforme pétrolière yi nekk si àll ci géej gi nga xam ne dañ fa war a dem hmm. ñooñu ñoo yor marché bi moom la ñuy wax dàpp ba li ma la wax hélico ñaa la tudd boo demee aéroport bi di nga fa gis hmm. kenn moo la fi indi depuis kañ lañ négocier affaire bi c'était avec Aliou Sall d'accord. Elicoña boobu la moo ko indi Sénégal lan moo tax ñoom ñu jékki-jékki gagné marché bi plateforme boobu mooy ñi war a liggéey ci plateforme yi bu ñu wàccee ci biir géej gi ñoom ñoo indi transporté ñu ñëw fii bu ñu war a liggéey ñoo indi waat bu amee ay marchandises Elicoña mooy yóbbu mooy indi. marché la bu ñu si. marché la mooy Elicoña Elicoña boo demee nga xool Elicoña. E Elicoña H la commencé boo demee nga xool li muy liggéey illi ko ñaan lan mooy këram ngi fi plateforme boobu gis nga ñooñu si nekk nii plateforme pétrole boo gisee boo gisee ñu tabax tour des mamelles boobu. Mm. c'est pour ñi nekk ci pétrole bi bu ñu fa génnee ñëw loué foofu dañ ko teel a préparé. mooy bi pétrole bi ñëw. pétrole bi di ñëw nii am na ñu nekk si àll si géej gi si géej gi ñu ngi si liggéey ñooñu fu mu nekk nii mamel bële tour des mamelles bu pare. Mm. gis nga moto ñu def ko gis nga tur bi nu mu nu mu ngandee mhm. dañ koy defar pour que ñooñu nga xamante ni c'est des multinationales bu ñu ñëwee mën a louer foofu wala ñu jaay leen foofu ay appartement réew mi réew mi ñu ñi ko. baal nañu tàggatoo bu ñu seetaan saa ñu jàkkaarloog yaakaar naa ni waxtaan ak yow kese la kontaan nañ bu baax a baax. maa ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu émission bi. te nga xam ne je suis disposé à tout moment boole ma soxlawee. incha allah incha allah ñu waxtaan ci actualité bi. Mhm.